dal leen jàmm lu gën a fës ci yéenekaay yi bokk na ci xeex bi nga xamante ni nguur bu Sénégal fas yéene na ko sumbaat ngir ñu dakkal coronavirus ci biir xew mi bokk na ci te jégalu Serigne Modou Kara di jégalu jëmale ko ci kilifa diine yi biir réew mi ak ci askan wi ñetteelu mbir yu yéenekaay yi xëyee bokk na ci dëpp yu Pape Bouba Diop bi nga xamante ne niki tey lañ ko fas yéene delloosi ci mbirum xeex lii di Covid 19 nguur bu Sénégal fas yéene na ci taxaw temm ci lii di lieu public yi transport yeeg fépp fi nga xamante ne day dajale nit ñu xeex ba nga xamante xamante dañuy respecter li di mesure barrières yi moo waral yéenekaay bii di le quotidien naan l'état met le masque ñu jàppee ci ne rek lépp li nga xamantene ab mesure la état bi fas na ko jël ngir deuxième vague coronavirus bi ñuy lam lamé bañ na ko bu yaboo sax ñu delluwaat li nga xamantene couvre-feu Vox Populi moom it xëy wax ci li nga xamantene mesure yi nguur bi bëgg indiwaat gën ciy bay wàllam ba rek journal bi naan li nga xamantene si ni moom la jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér yaram doon waxtaanee ci réunion bu mu amal ab comité national de gestion des épidémies bi ñoom daal fas yéene nañ jëlaat lépp luy mesure ngir rek ñu xeex lii di mbas bi ndaxte président Macky Sall moo ko xelal te bëgg-bëgg bi lenn la moom mooy daal ñu jéem xool na la ñuy ba amaat yeneen i mesures yi gën a dëgër ngir lii di mbas bii di covid 19 daal ci biir xew mi yéene bi di L'As Quotidien moom it xëy wax ci wàllu wi naan qu'aucun scénario n'est écarté ndaxte nguur bu Sénégal ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram jamono ji dañoo taxaw temm ngir rek di covid 19 jaral na leen sax bépp pexe la te muy jëfandikoo li ni mel moo waral l'observateur que waxtaan bu yàgg directrice générale de la santé di docteur Marie xemes Ngom Ndiaye moom mu ñuy xamal ne fii ak juróom-ñaari fan jàpp juróom-ñett fan ci weeru décembre Sénégal dina dugg ngir rek essayer li nga xamante ne moom di vaccin yi ñu wax ci mbirum centre de redressement yi ñu doon laam laamee ni Serigne Modou Kara daat na ciy laalee ndaxte ni ki démb yéenekaay bii di enquête moom ñuy xamal ne guide religieux bi génnoon na def ab audio bu ngand di jégalu askanu Sénégal rawatina ak njiitu réew kilifodine kilifa diine yu nekk ci biir xew ay ndaw yu ñu jàpp ci ay bërëb daal leen di tëj di leen xookatal ak di leen buntu xatal ba waroon ñu jàpp lu tollook ñett fukk ñett doomi aadama di leen tuumal leen mbir moomee te ñooñee sax joxoon baaraamu tuuma seen kilifa bii di Serigne Modou Kara Mbacké le témoin quotidien naan jëf joojee nga xamante tey Serigne Modou Kara jëf na ko di jégalu askanu Sénégal rawatina kilifa diine mu mel ni nag ki nga xamante moom la ñu duppi général Kara dafa xoox te dafa deltu ginnaaw ndaxte moom moo fi doon tëq ki bàkku numéro Kara ci biir benn xëtam nee na daal moom benn bëgg-bëgg rek la amoon mooy jubal musut a bëgg yàq ay xale ndaxte bu ñu xoolee mbir mi nga xamante ne moom lañ koy tuumaal mun na dem ba ci yoon te bu yeggee foofu fa mbaxane doonee benn mun na am ay njeexital yu dul neex ci moom yéenekaay national bi du la Soleil del soit nan tey dinañ amal ay obsèques nationales ci li nga xamante ne moom moo di dépouille Pape Bouba Diop bi ñu del si niki tey yéenekaay bi di Le Soleil di fàttali ni Pape Bouba Diop génn àdduna fële ca France dimanche bële ñu génn ca région bu Lens ginnaaw nag bu mu feebaree ay weer yàgg ñu fas yéene koo rendre hommage bu ngande lool nag moo tax yéenekaay bi def ci xëtam bu njëkk l'ultime hommage d'un peuple à un héros Pape Bouba Diop muy sax di des ci xolu sénégalais yi ba faw ndaxte dafa marqué histoire football Sénégal xawatuñu bu àdduna bi wërngal këpp mbokk yi fii la ñuy yam ak yéen lu gënoon a fës ci yi jaa ngeen jëf